ñetti fan di bés bi nga xam ne moom la ñuy màggal jigéen ci àdduna wërngal këpp jàngalekat yi nag di dox jigéen ñi mën a dugg ci l'école bi di Escoffier bu département bu Bambey amaloon nañu seen ak ndaje seen ak njiit di ci yëkkati ay kàddu. tax ñu tànn thème bi mooy bu ñu waxee euh, violence faite o filles e aux et dans le milieu euh, digital numérique euh, au Sénégal. bu ñu waxee loolu xale yi dañuy gis ne xale yi jigéen ñi le milieu le milieu kii numérique bi xale yi au ñu jël li nga xamante ni mooy la côté positif parfois dañuy jël le côté négatif parfois dañ leen ci violenté parfois ñu leen ciy def ay ay ay ay ay kii ay chantage lu nekk ñu di leen ko ciy def et pourtant milieu numérique bi am na tuuti importance parce que ñoom xale yi mën nañ cee jàng. moom mi le sax nee na njàngam jigéen ñi rek moom moo leen soxal am nañ ca ay ndam. ndax parfois dañuy rencontrer jigéen ñoo xamante ni dañuy euh, am ay problème pour dugg école wala suñ duggee école ba pare dañuy am problème pour jàng ndax yenn saa dañuy am euh, problème euh, am matériel am parents yoo xam dañ leen jëndal ay matériel yu ñu mën a jàngee loolu lépp est-ce que fi da ci taxaw léeg-léeg tamit euh, ñu di leen jël di leen maye ay mariage forcé te xale yi du bëgg dañuy bëgg a jàng loolu dañuy accom dañu ci accompagner xale yi souvent di leen ci jàppale ndax di bëgg ñoom ñu jàng mais aussi xale yi bu bëgguñu tamit ñu dugg école rek euh, commencé ba CM2 ñu arrêté moo tax ñu dugal ci euh, ñu dugal ci moyen secondaire xam ni day dem euh, CM ba lycée nga xamante ni ñoom dañuy topp xale bi di ko suivre bu ko defee bu ñu ko bëggee defar mariage précoce ñoom ñu taxaw ci waaye is ko fi taxaw ci ba nga xamante ni mariage yooyu noonu du du duñ ko nangu dañuy bàyyi xale bi mu jàng ñun dem nañ ba fay sax ay dot yoo xam ne xale bi dañ koy jox dot bi mu ne moom buggul parents yi ni ñoom xas nañoo jël dot bi ba pare xale bi foog mu sëyi est-ce que fi da ciy taxaw ñun ñi ay enseignante lañ amuñu nag euh, benn ci bénévolat la ñuy liggéey. violence bu jigéen ñi nag nekk na loo xam ne lu doy waar la ci Sénégal la. dañ caa war a àddu bu ñu sukkandikoo ci Fatou Yat. phénomène viol dañoo xam ne dafa bëri. day day day installé wu si day gën a yaatu daal si si si Sénégal rawante rawante nag si milieu scolaire donc ñuy ñaan état mu jël ci ay mesures ak sanctions sévères pour que phénomène boobu mën a disparaître. docteur Aïssatou Mbodj mi nga xam ne moom la ñu ndeyale woon bés ba na jigéen ñi ngir ñu mën a mucc ci xoñoñal bi ak yenn yi faaw ñu daal di booloo am solidarité. ta ànd dañu war a gërën dañu war a wëlonte ñi nga xam ne ñoo nekk place boo xam ne dañ leen di soxla bu ëllëgee ki si biir ñu bañ a koñe kenn parce que lépp dafay jeex te àddina def booy leble lebleel lu baax parce que saan wuy dem di dellu si la donc loolu. dama leen ciy soññ en tant que nitu expérience en tant que ëppale leen expérience dama leen ciy soññ parce que boo gisee at mu nekk ñu indi métital yi ñuy métital jigéen ñi sekk que jigéen ñi dañ leen di métital ci biir kër yi te yenn saay yi sax jigéen na koy def dañ leen di métital ci liggéeyukaay benn nit bu woo préfet mu ne allo mu comme jigéen la rek mu defoo ne préfet bu jigéen mënu la am naan ko jox ma préfet waaye yow defoo ni xalelam la wala secrétaire am wala dara loolu ci métit la bokk. ba jàngalekat yu jigéen yi marraine ba ak ñëpp daje woon ci cérémonie bu Bambey yi mu nekkoon bés boo xam ne bés bu réussir la te bés bu ñu doon sargal jigéen la.